merci man ajaratu bu mu laa tudd nekku chef de village ndàngalma Ndangalma mi ngi nekk ci région de Diourbel département de Bambey arrondissement bu ñuy wax Ngoy. sunu teewaay ci ndaje mi mooy ndaje mi ndaje jigéen la ndax problème mu parité leen fii wax te nun ku ko wax waxaale loolu moo la indi ci ndaje mi. Hmm. Euh, liñ fi jot a waxtaane bari na parce que parité bi li nga xam ne moo koy moo koy moo koy moo koy yàq mooy jigéen ñi ñooy teqatal seeni bopp seeni moroom dañu bëgg nag jigéen ñi joxante seeni borom loxo ba génn jigéen dootu teqatal moroomam parce que ñun dañu dépassé foo xam ne dañoo war a topp ci ay góor di leen tàccu rek egsi nañu fi nii xàpp yi góor ñi war a takk moom lañu war a takk kon duñu topp ci ay jig ay góor di leen tàccu nit nag dafay xam boppam ndax yow mënuñu ne population yow yaa fa ëpp bu dee téeméer la ñu ñu war a nekk juróom fukk ak lu topp ba pare te fu nu toll di toppe loolu moom dañu yaakaar ne loolu war nañ ko romb war nañ ko dépassé ci loolu la ñuy waxtaan. waaw parité bi ko fi tegee yàgg na dama ne bat yemut ci làmmiñ yi nag parce que ku nu xool xool fukki at ci gannaaw ni conseil yi daan mel nga xam ne bu conseil amee juróom euh, bu municipalité amee juróom benn fukki conseil ñetti conseil cay ne ay jigéen baa juróom benn loolu jeex na fi même bu fekkente ne egguñu fu nu bëgg a jëm itam aw nañ ci yoon woowu ndax conseil municipal conseil bi yokk na ndax parité bi tax na conseil bi yokk jigéen ñi yokk nañ ci municipalité yi kon bul ne eggagu demaguñu fenn am na fa nu dem xañ na fi ñu bëgg egg yëpp eggaguñ fa mais nag am na foo xam ne am na nu avancé bu nu def li nga xam ne moo nuy tax nag nu yegg fu nu jëm mooy nun ci sunu biir dañuy waxtaan ak sunuy morom parce que dégg nga ni ma ko waxee góor ñi dañuy dem ci dëkk gis fa ñaari jigéen ñu xeexale leen. li tubaab naan diviser pour mieux régner ñoom bu ñu bëggee am ci ñun dañuy féngale ñaari jigéen ñaari kuuy la ñuy féngale ci mbalka léegi jël dagg te jigéen ña yóbbu loolu nag lanu lànk danoo bëgg di waxtaan di joxantey loxo ba benn góor du nu mën a jaxaseeg sunu moromam jigéen